mise à la vente d'une Mercedes classe E 6 cylindres, carburant, essence, full option. Année 2016, intérieur cuir. Aucun défaut signalé. Contact 77 301 59 35 ou le 77 484 87 98. mais Zem ziar na la. way doli ziar gay na ñu ziar bu baax. ci lo nek ñu ngi bu baxé eh. ñu ngi lay def de écrit bi xol gars ndax ñu ngi liggéey wal liggéey. wa gars ñom ñoom ah gars de. waa yow tamit fi mu la fekk macha allah yaa ngi liggéey. waaw man maa maa ngi dóor muy daal maa ngi rek di waajal quoi oui. depuis sa combat ak Lat ba léegi. yaa ngi si entraînement yi di waajal. waaw maa ngi si ba ba ma ñàkkee ma xëy na ma entraîné na waaw ma entraîné ji parce que man moom bëre rek laa am quoi tamit moo tax quoi. daa am bëgg a laaj diggante Zarko Ada Fass noo gisee combat wu. Zarko Ada Fass de. combat la de wax dëgg yàlla combat la combat bu neex la. Mhm. Zarko moom mag bi ñu ko teg du mag. mag de te am na doole. te mbër la tamit quoi. waaw ci koy mbër mi ngi si moom daal mi moom waaw. xale bi dafa doy waar te xale ne màgg na. waaw màgg na moom. waaw gis naa ko màgg na xama mais tamit am na combat daal. am na combat kan la euh, non Ada am na combat quoi na respecté Zarko quoi. Euh, Ada lu mu war a sotti Zarko. non lu mu war a sotti Zarko comme que moom dafa déclaré ni xale la. amul dara lu muy sóor. su ñëwee nag waaw su comme comme booy la moom su ñëwee na mooy appliqué mooy appliqué kay mais Zarko leen mooy catam xoolul xale xoolul mag balaa ngay appliqué mu dal sa kaw. moom yoonam nekkul si yooyu moom moom yëgul lu bari yoonam nekkul si yooyu. moom combat ko ci war ñu ne mooy mag moo jiitu xale bi ci biir làmb nan la war a ñëwee. Zarko sax warul taxaw di di lem lemal parce que xamul loolu déedéet. ñëw dox kaw nga. waaw kii alxuraan si arbitre la day jóg si kawam. Eh? non Zarko loolu bu mu bu loolu sax pour taxaw nii di xaar nii pour mu ngay ñëw non non. Hmm. man du man du du ma yóbbu mbër mu conseillé ko loolu. parce que man mel ma noonu man si arbitre bi man may dem. waaw man noonu laa mel. waaw moo tax. mais foo jëm fi mu toll nii. instant bi naa instant bi moom. bëgg naa combat bu baax dëgg yàlla parce que woo nañ ma jox ay combat mais adversaire yi dul arrangé quoi ñoo dul arrangé parce que mënoo jóge si pare di bëri ay combat yoo doo comprendre mais gars yi ngi def ay démarches ñu ngi dox combat yi daal waaw ñu ngi def ay démarches non dina taxaw incha allah ren moom dinaa bëri ñaari combat kon daaw quoi daaw bëri naa ñaari combat ren naa bëri waat ñaari combat incha bu soobee bëgg naa ci yow. ok ñoo far gaynde jaay eh, siyaar naa siyaar. ci loo nekk maa am bu baax. jékki rek bett écurie xool ndax ñu ngi liggéey wala liggéey mais écurie parcelle mbooloo moom ñu ngi ci moom. waaw mais loolu lañ fi am parcelle mbooloo moom heure boo ñu xëyee moom dañuy nekk si entraînement yi rek du lundi au vendredi moom gars yi ñëw di ko respecté. Mhm. waaw ndax dañoo am ay su am ay kilifa yoo xam dañuy woo. Mhm. te dañuy ñëw di leen respecté di dégg seen consigne di ñëw di entraîné. waaw sa combat passé ni mu demee jàngal na lu bari wala waaw jàngal na ma lu bëri ndax am naa si mbétteel ñëw naa bëréewu ma xeexu ma def dara ñàkk mhm. mais laam moo demee noonu ñu ngi waat si defaru yi rek mhm. waaw. li ma la bëgg a mooy Zarko Ada Fass noo gisee combat làmb la rek. Mhm. waaw mais dafa doon làmb boo xamante ni Ada dafa nekk xale. ne si yoon di yéeg ñu jox ko Zarko mais nag itam bu ñu jàpp ni Zarko daa nekk mag bu jeexal te du mag dëgg la moo mag Ada jiitu ko si làmm mais ndaanaan la jàmbaar la boo xoolee ay combat am rek nga xam ne kii gaynde la mais itam aada dafa nekk xale boo xam ne dafa nekk si yoonam am gëm-gëm ni day daan waaw ndax loolu képp booy bu ñu ko defee rek bu doon yow itam gëm-gëm boobu ngay doxee mais itam na ko jox respect bi rek ñu wàññi violence bi te xam ne làmb la day jeex. aada lan moo ko war ci combat ak lu mu war a sóor ci Zarko. aada lu ko mooy mu liggéey rek ba dee lu mu liggéey xeeb ko. waaw te xam ne Zarko ndaanaan la waaw. ñu bëri ñu ne Zarko moo ko mag mooko ko jiitu ci làmb moo ko ëpp expérience kon Zarko moom naka la war a ñëwee ci jour combat bu. Zarko dafa war a ñëw avec la manière rek zéro faute ñëw wane ni man kii du ma moromam. amaana la nekkul làmb moo moo leen boole palmarès mais coow làmb moo leen boole dafa war a ñëw avec la manière wan ni booy bi man nii nii la war a bëree mais itam di leen nekk le meilleur gañ rek waaw. ñoom ñaar ñoom ndaanaan lañu. waaw ay ndaanaan lañu. waaw. Touba fan la jëm. man maa ngi si. mu nekk sa xel. bëri na tey rek tey suba rek Fallou Ndiaye woo na ma. waaw ñu may waajal pour février bi. incha allah waaw. adversaire. non waxaguma mais ñu ngi siy dox quoi. waaw Fallou ak ak garaaw mooy loxo ku ne. Ndiaye moom sama waay la de borom baax la garas bëggee Fallou Ndiaye di bëggee waa Ndiaye production bi yëpp ak Amdi Moustapha gaa yëpp. bëri wax. ah Amdi sama waay la de di bëggee ñëpp parcelle di ñaanal. cent pour cent parcelle bi mbër yëpp di la ñaanal ku si am combat yàlla may la ndam ñi amagul combat yàlla may leen combat di encouragé tam Giro Seras ne ko jàppal lam moo demee noonu amaan nga combat yaak Abu Ndiasse ñu ngi lay xaar pël bi ñu ngi lay xaar jaajëf jaajëf grand bi mbër ci loo nekk maa ngi nii sant yàlla maa si jàmm maa ngi si jàmm baax parcelle mbooloo mel ñu ngi liggéey de waaw ñu ngi liggéey waaw caaxaanun koy noo gisee Ada Fass ah xanaa ku ne entraîne rek ñoom ñaar ñëpp ay champion lan de. waaw. nga gisee ne mu ngi ci état état yi waaw. Ada Fass la war a mën a sorti Zarko. ah ñëw déglu conseil rek boroy conseil man de loolu laa gis. Hmm. waaw. lu war a mën ci moom moo tax moo xam nag ne kay ma mooy màgg après mu xaar. mu taxaw xaar waaw. dafa war a xaar ko. dafa war a kay waaw dafa war a xaar de. Mm. waaw. ah lu mu def moom dafa war a ñëw appliqué dal ci kaw Zarko wala. waaw dafa war a ñëw appliqué dal ci kawam. Mm-hmm. waaw. équipe bi naka lay doxee. équipe bi tey la ñëw entraîné rek entraînement bu baax a baax contact. Mm-hmm. waaw. ñu ci entraînement yi bu baax a baax contact lu bëree bëri billaahi waaw waaw di waajal saison bu baax nag waaw. dëgg naa ci yow mbër. waaw kontaan nan. mbër ziar naa la. delloo ziar baay. tawfeex. sant yàlla kay. parce que mbooloo laa mel ni yéen ngi liggéey caaxaanoo leen. waaw ñooy liggéey bu baax a baax moom. Uh-huh. waaw. dama la laaj benn combat noo ko gisee muy diggante Zarko Ada Fass. Zarko Ada Fass ah moom kii Zarko kii Ada Fass daa yaakaar ne comme maanaam moom. kum doole la ko ñëw indil quoi kee mën na ko tamit xam nga moo ko jiitu ci làmb kee mën na ko indi doole comme ni man xale laa indi ko doole kee indi ko yëfu mag daan ko ko waaw. Arafaas lan war a sóor ci Zarko. Arafaas xanaa tey dégg lu xam ne maanaam mag la fekk si quoi Zarko moo ko jiitu ci bëre waaw da ko war a teel loo xam li mu bëre moom. waaw su defee noonu rek mën na am ndam ko mais su ko profité mën na am defet bu waaw ñu bëri ñu ne euh, Zarko moo jiitu Ada ci biir làmb comme moom mooy mag moom naka la war a ñëwee moom Zarko. moom comme moom Zarko nu mu mën a ñëwee comme teelu rek moom tamit comme xam na ne moom xele la comme ci Ada Fass bu xale la su ma koy day indi comme day indi doole profité ko comme moom mag la. moom de koy teelu rek su ko teelee rek kee da koy indi doole après mu daan ko ci xel quoi waaw. bëgg naa ci yow. aca jaajëf. mbër ziar naa la. delloo ziar. noo tudd. man Jam Senghor. Jam waaw. mais parcelle mbooloo ndek yéen a ngi liggéey de. waaw ñu ngi liggéey ñu ngi si kawam de. amul seral quoi amul seral dóor mu daanu rek. Ah. bilaay walaay. bëri ngaa ren. non bëreegu ma nag mais ñu may wutal combat. sa adversaire laa yërëm de. waaw gis nga de xam naa ne moom gars yi moom dañ may daw rek. Hmm. waaw. dañ may daw walaay ah non non. Ah. gars xam nga mboru mbapat rek mooy loolu. duñ loolu la demee nag. dafa am lu la bëgg a laaj ci diggante Ada Fass Zarko noo gisee combat boobu. Ada Fass ah combat bu neex la de. Hmm. oui combat bu neex la moom ku nekk moom gëm naa ne mun nga daan sa morom. ñoo gisee ñaari mbëri. ñaari mbëri ah ñoom yëpp ñu ngi si forme moom macha allah. Hmm. waaw ndax xam nga ne Zarko moom dof la. Zarko. xamul janj ak hmm. moom mooy loolu. bilaay walaay. lu mu war a sorti Zarko. Aada ah xanaa mu tey rek. waaw mu tey comme ça mu bañ kaa yàkkamte quoi. waaw waaw. <coughs> Zarko lu mu war a sotti Ada ndaw te tamit xale bu nga xam te mu ngi si yoon. na sóoraal tànk rek. waaw xam ne Ada Fass moom mbotkat la. waaw waaw waaw waaw. waaw day déclenché quoi loolu mun na ko trop. waaw xam nga nit bu nekk am am nga fort. waaw loolu moom dafa nekk foram. mu sóoraal loolu tamit. waaw mbër bëgg naa ci yow. waaw aca jaajëf. Bébé Reug naa la. waaw joli ziar gaan. ci loo nekk. sant yàlla. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu wër. mais dafa mel ni parce que mbooloo caaxaanuñ gars yi ñu ngi liggéey de. no parce que mbooloo amul caaxaan. Oh. waaw. xale bu fi ñëw. nangoo liggéey. xam nga ni ñii amuñu caaxaan. billaay. fii moom wax dëgg yàlla boo fi ñëwee rek. xam ne xale yaa ngi liggéey. te ñun wax dëgg yàlla ñu ñuy teg ci côte. ñu ngi na normal. di leen ñaanal rek suñ coach si ak suñ grand frère yi fi nekk di leen ñaanal chaque jour jàmm rek di xew ci parce mbooloo. foo toll lu gars yi wax si yow. waaw gars yi jox nañ ma benn dix le 17 décembre. maag Tafa Leer numéro 2. Valère numéro 2. waaw xam nga ko. non xam naa ko nii rek. Hmm. dégg naa ko nii rek. non man lu lu weex laa bëgg. Hmm. man lu saf sàpp laa bëgg. mu waaw lu saf lu mu saf sàpp mu gën maa arrangé. daa bëgg lu saf sàpp. man loolu laa bëgg nag. Hmm. dama bëgg mel ni moom. ak sama grand yi fi nekk ñoom Zem ñoom Boka gaa yëpp ñoom jàpp mu jeex ñu comme mel ni ñoom laa bëgg. li ma leen laaj mooy Zarko Ada Fass noo gisee combat boobu. Ada Fass non man premier a waaw. mais quel ñaari mbër yi. non ñaar ñëpp mën a bëre. te ay champion lañ waaw. combat bi ci la gën a diisee. Eh, non combat bi non gars yi ci gis-gis nee nañ Zarko moo gën a diis gars yi loolu la ñu wax de mais gisuma diisaay man waaw. am na caay-caay de. non xale xale la moo tax. xale du xalaat. bilaay day ñëw rek def li mu war a def rek dem. voilà noonu uh-huh. la dugg bëgg naa si yow waaw ñoo ngi jég cay bëggee gaan jaajëfati ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati kam mangala yaara